rajim bismillahi rahmaani rahim wa salla wa sallam ala almabuus rahmatan lil alamin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi almujahidin wa ala asna xadimihi sadiqi alwaadi al amin wa man ixtafa asharahum ila yawmi din mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziara di leen bal xaq tey baal ñëpp àq di ziare mboolem koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel euh, télé bi di kuréel Seexul Xadim TV mu ñëw fii tey ci Argentine Touba euh, Buenos Aires ànd ak euh, lëkkaloo ak Touba Argentine TV bi nga xamante ni Serigne Gora Seck moo koy jiite ñu fas yéene di digtal leen rek li nga xamante ne nii. moo xew fii tey ci Buenos Aires mu di euh, xew-xew bu màgg bu rëy ci lislaam mu di xew-xew boo xam ne dañ koo jagleel euh, xasida yi sëriñ Touba yi di mbindum sëriñ Touba te kenn ku ne xam na ne xasida yi Serigne nee na mooy ay karaamaam karaamati xattu yedd yi euh, kon nag kenn ku ne xam na ne Serigne Touba amul lenn lu gën a kiimaane xasidaam yi ndax moo ko waxal boppam moo ko bindal boppam kon ki nga xamante ni moom lañ taxawal moo di sëñ maam Thierno Amar mooy ki nga xam ne moo jiite lépp loo xam ne jëm na ci wàllu organisation ci mbooleem fédération bi kon xam naa dañu bëgg rek incha allahu euh, laaj ko ay laaj yu néew a néew rek ci li nga xamante nii moo jëm ci wàllu journée xasida bi nga xamante nii taxawal nañ ko tay jiita yaakaar naa bañ ko commencé di ko taxawal ak léegi ay at yu bëree bari la kon xam naa dañuy def dañ koy jox kàddu gi rek mu nuyoo euh, bu ko defee ñu laaj ko laaj yiñ ko war a laaj bisimilah sëñ maam Thierno bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala man la nabi ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa xadim wa sallama tasliman mbokki julli ñi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar di jiital ñëw bi sëriñ Sidim sëriñ sëriñ Muntaxa Basiir ko ñaanal mu gën a yàgg gën a wér ba li ñu yéene liggéeyal ku tedd ku mu def ko lu gën a kaw njortam ci baskab xasida yi di nuyu bu baax a baax kuréelu Cheikhul Khadim Touba Nawarsa muy muy seen télé boobu ànd ak Touba TV Argentine tey ñëwoon fekk ci bis bu tedd bi nga xam ne mooy bisu xasida yi xam ne amuñu lu ku du Serigne Touba te moom it li mu liggéey lépp fu ne dem na fa waaye nee kiraamam mooy xasida yi te ku ne xam ne ne kon kiraama Serigne Touba lu jar a màggal tey muy xasida yi kon tey dañuy rafetlu seen teewaay bu ngeen ñëwee fii ànd ak ñun bis bi ne liggéey Serigne Touba yéen kuréelu Seexul Xadim Touba sax moo leen ñor kon ñi ngi rafetlu seen teewaay di leen ñaanal ci barke xasida yi fi ngeen bëgg seen télé bi yegg fa yàlla yegg fu gën a kaw seen jot ci barke xasida yi euh, jërëjëf sëñ Maam Thierno mu mel ne kon journée euh, bi Eh, niñ ko gisee nii mbooloo mi takku na lool bari na lool eh, mu mel ne kon yaakaar naa ne mboolem arsan yëpp teew nañ fi ñu doon laaj rek ndax eh, waa Buenos Aires kese ñooy ñi nga xamante nii ñoo ñoo organiser journée xasida bi wala fédération bi dafa aju ci mbooleem Argentine gépp ak itam buñ ci ajoo ndax ñoom ñëpp maas nañ ci dox condi ci condition yi nga xamante ni moom lañ leen fédération bi tegal ba ba mu mën a sottee mel mii mu mel mucc ni ay ayib waaw li nga wax dëgg la fédéra euh, journée xasida bi nag fédération bi yëpp moo koy taxawal boo xoolee at yi ci ginnaaw moom def nañ ko lu mat juróom-benn yoon waaye ñaari at yi muy daaw ak ren dafa taxawal lu ñuy wax fédération Serigne Touba nga xam ne moo lëkkale mbooleem daayira boo xam ne yaa ngi biir Argentine kon ñi wax na ne daayira yëpp teew nañ fi ñoo ànd ci liggéey bi. boo gisee liggéey bi mën a yéeme di mën a mel ni bépp daayira boo xam ne si yaa ngi ci province yi muy daayira sëriñ yi muy daayira boo xam ne yaa ngi ci àll bi yëpp ñëw nañ fekk si liggéey bi ànd ko ñun ànd seen addiye ku nekk tamit taxawaay taxawaay am solo moo tax liggéey bi mën a mel nii mboolem ku nekk ci Arsane di daayira rek teew nga tey ndax mbooloo mi fu ne lañ jóge ay bus lañ jël ñuy yor seen i oto ñuy jël ay train fu ne ñëw nañ fa ngir rek màggal si xasida yi gisee tey bis bi mën a mel ni mooy mbooleem Arsane yi gépp dañ cey jàpp kon nag loolu sant la ndax fédération bi rek moo mën a taxawal lu mel nii Eh, jërëjëf sëriñ maam Thierno kon mel na ne ñaanuk sëriñ Touba bi nangu na te mooy la mu ñaanoon suñ borom booleel ko eh, dajaleel ko mbooleem aw nitam eh, te kon bu fekkee ne mbooleem taalibe yi fu ñu fi mën a nekk ci réew mi rek ñoom ñëpp dajaloo nañ tënk ci génn buum muy waxtasimu bi hablillahi wala tafaraqu ak wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan ba mën a def lu mel nii jëmmal bisu xasida bu toll nii yaakaar naa ne sëriñ Touba kon la mu bëggoon lépp am na ko ci njabootam gi ñuy ñaan yokk doole gën leen a dëgëral sëñ Tuubaa gën leen a jàppale ndax ay mbiram yëpp noonu nga ko waxee gannaaw def ngeen ko fii lu mat juróom-benni at ñaari at yi rek lañ koy doog a bokk mbooleem réew mi kon kenn ku ne xam ne ne euh, Serigne Touba euh, mbiram yëpp tànki kanam rek la waaye amut tànki ginnaaw euh, ñu bëggoon a xam ndax organisation bi nga xamante ne nii moom nga jiite tamuy lu lu lu lu xaw a naqaree jiite ndax. mbooloo moo xamante nii mu bari lañ di Argentine gépp fu fi dëkk man ne eh, kenn maanaam eh, nga bëgg leen a eh, boole ñoom ñëpp organiser leen ndax loolu yomb na wala nu mu fa demee su suñ maam ci am waaw jërëjëf organisation moom xaw na jafe ndax maanaam lu toll ni Argentine fu ne nit jóge fa nga bëgg leen a boole ci benn kii journée bi yëpp jàng xasida ku ne nga bëgg ko teg fa nga nekk dana xaw a jafe waaye nag suñu borom dimbali ji ba dañoo nekk fédération euh, organisation boo xam ne dañoo am kuréel bu ñuy wax euh, xidmatul xadim boo xam ne sëñ Bamba Ñaŋ ma ngi ca kanam ak sëñ Mourou Sène kuréel yëpp xam ne ci biir organisation bi am na lu ñuy kuréel bu ñuy wax sécurité am na lu bépp pàcc boo xam ne war naa doxal li organisation am na ci xay na nag mboolee boo leen dajale lañ ca bëgg dëgg dëgg mën nga ko bañ am waaye wax dëgg yàlla liñ ci am kawe na suñ jot ndax gis nañ ne mboo ko taalibe yi xasida yi rek moo leen ñor moo barab bii boo xoolee ñu ngi ko fii doo ba def li muy sori sori ak li muy ruxe fu waaye jëkk bàyyi nga say nelaw teel a ñëw ñii di durus xasida yi ñii di kuréel ñii di sikar kon nga xam ne nit ñi sëñ Touba moo leen ñor te sëñ Touba amul lu xasida yi kon xasida yi moo leen ñor waaye nag ñu ngi ciy góorgóor nañ ci lépp loo xam ne mën nañ ko di di gën a soññewaar di ñaan mbokk taal ñu gën noo jàppale ndax organisation dafa metti waaye nag ñu ngi ciy sant sëñ Touba baax mu gën ñoo dooleel rek comme ni nga ko waxee tamit euh, suñu xel day dal ci booloo bi ngay wax da ngeen a si moo xam ne daal jëmee wala faraxoo maanaam loolu rek la sañ bi bëgg ci ñun te boo gisee lii xam na loolu am na fii loolu àdduna ndax ñun suñ tuwaa defaral ñu lépp ba pare fii nag leen rek moo fi mën a sonal mooy bañante wala ñàkk boole te loolu kon am na fi kon dañuy sant yàlla ñaan suñu borom sotti xéewal yi bu baax a baax ci mbokk taalibe yi ndax bëgg gi am na fi na fi ndax ñoom ñëpp fu ci waay jóge rek bàyyi nga sa say nelaw bàyyi sa lépp ñoo ngir jëmmi xasida yi kon nag ñu ngi sant mbooloo bi te dina gën a ñaaxaat ñu góorgóorlu te gën a wormaalal xasida te xam ne amuñu lu dul xasida yi danoo xool bu baax niñ koy niñ koy barab yi mu koy yor xasida képp ku ci jëriñu ci yow la kon nag am nañ sant bu ci mbokk taalibe yi wér wér nga wax xasida yi ku ci jëriñuwut ci yow ndax euh, Serigne Touba dëxëj na ci lépp lu jariñ taalibe tay ak ëllëg addunaam euh, ak àllaaxiraam lu mu xam ak lu mu xamul euh, ni mu ko waxee rek xasidati faaxat xasaayidal kiraam wali taqud abadan xayril maraam wax ila tawalifi yaqudu llahu asrara la ilaha illa allah te yaakaar naa asraara la ilaha illallah moom mooy lépp eh, luy yëngu ci kaw suuf di rek loolu moo lay yëngal kon bu fekkee ne mi ngi ci biir xasida yi noonu la ko waxee lu wér la xasida yi lépp ku ci jëriñuwul rek ci yow la kon nag ñëpp war nañoo maase góorgóorlu fas yéene jariñu waaye ñu lay laaj rek kon programme bu bis bii tey nan ngeen ko tërale woon ca suba ba léegi ci lan ngeen ko commencé ak ci nan ngeen ko fas yéene àggale incha allah bu ci yàlla ànde ndax dañ sëñ Tuubaa dañoo defal loo xam daf ñoo jomb ndax xasida yi dañuy comme ni nga wax dañu cee dexaneen lépp képp koo xam ne yaa ngi jàng xasida yaa ngi tudd yàlla yaa ngi julli ci yeneen bi yaa ngi def astaghfirullah yaa ngi def lépp kon loolu ñu tënkal la ko ci xasida yi loolu sant la war a doon te lépp mi ngi ci xasida yi programme bi nag ni ñu ko tërale mooy bi ñu xëyee ànd na mbokk taal bi ñëw dox doxu màggal yëkkati xasida yi yëkkati bàngaar euh, photo Serigne Touba yi tudd baatu yàlla yi ànd ak mbokk taalibe di génn ci mbeddi artante yi nga xam ne mbeddi tubaab yi nga xam ne ñoom ñoo fekkoon ku tedd ki ca dëggam jële ko ko bax bañ mu bañ mu andi fii mu andi tey l'islam bi ak ni mu ko yeesale tey ñu ñëw ba ci seen mbir dëkk kon di ko def kon foofu lañ commencé programme ban gis ko ñoom ñëpp bi mu ñëwee ñu commencé jox Baye Fall yi ci ndax ñoom li ci ëpp ñooy nekk ci wàllu waañ kuréelu capital kuréelu Daaru Xudóos kuréelu Sëñ Saaliw mboolem kuréel yi ñuy jël bépp kuréel bu jàll ñu jox beneen mu sikkar ñi nga xam ne si ñoo toog di durus ñu jàng lu mat fukki kaamil ak ñett boole ko mboolem li mu xas yi fi nekk yëpp wax dëgg yàlla def ay tawasul yu baax a baax a sax amul lu dul nga dellu sa borom tuubal ko te lépp mi ngi ci biir xasida yi comme ni nga ko waxee. allah macha allah lu wér a wér nga wax ndax tam loolu nga fi lim yëpp mooy istixfaar salaatu ala nabi eh, ak tudd yàlla julli ci yeneen bi loolu yëpp ay ndigal la yoo xam ne boo demee ci alxuraan da nga ko fay fekk suñu borom digal ko mboolem kuy ab jullit. te bari na ci lool rawatina nag loolu muy li nga xam ne mooy tuub te moo ñu war fuñ toll muy istixfaar euh, ñu war koy baril mook salaatu ala nabi te yonent euh, euh, Sayxuna Alxadim boo xoolee xasidaam yëpp itam salaatu na nabi la ak tagg ko salaatu sitta bi madaxi sitta taatihi batta saay nga xam ne kon dafa doon xaaj ak dundam at mu nekk juróom-benn weer yi da koy tàgg juróom-benn weer yi mu di ko mu di ko ci julli ci moom kon loolu bu dee ndigal loo xam ne suñu borom dañu ko jox yaa ayyuha lasina amanu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha lasina amanu taslima kon muy ay ndigal loo ci gis rek istaghfiru rabbakum innahu kaana xafaaran loo ci gis rek ndigal la loo xam ne suñ borom ñu koo ndigal kon bu ko Sëriñ Tuubaa jëlee dëxañal ñu lépp ci xasida yi euh, loola nga xam ne booy jàng xasida mboolem ndigal yi suñ borom yëpp yaa ngi commencé di loola ni nga ko waxee amuñu payu Serigne Touba war nañ koo santaat bu baax te joxaat gëdd xasida yi di xool fi ñu koy eh, yor ak fi ñu koy jànge ak eh, di ko sellal suñu kemtalaay kàttan waaye kon lan ngay dénk taalibe yi ci ñu gën koo war a fonkewaat mbind moom nga xam ne moo di xasida yi ndax mooy suñu njariñal tay bi suñu njariñal ëllëg lu nu am adduna ak àllaaxira moo nu ko may ndax Serigne Touba nee na li mu am lépp ci la ko amee te kenn ku ne xam na ne am ci la ko amee ndax moom dem na ba bëggutoon ci jëmmam ji dara Serigne Touba amul lenn lu mu bëgg ci jëmmam ji liggéeykat bi yonent bi ci la ko doon liggéeyale waaw dem na ba turu boppam bi mu daan bind sax léeg-léeg ca njëkk muy ahmadu dem na ba bàyyi ko leen léegi nañ moom li mu doon rek mooy euh, abdullahi wa xadimu rasulihi kese nga xam ne liggéeyal yonent bi dong moo doon yitteem yit amatut benn yitte amut soxlaatut euh, yitte ci njabootam wala ci jëmmi boppam wala ci leneen dammi wa ahli wa awlaadil fidaa lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada kooku kon amatu doon benn yitte lu may liggéey bi nga xam ne moom la liggéey ba yàlla defal liggéey bi mu liggéey moo ko ko may ndax euh, nee na euh, xaddamani fil barri wal bahri maa nee na liggéey bii mu doon liggéey moo tax suñu borom ko jéeri ji ak ci géej bi kon nag euh, liggéey boobu yaakaar naa bokki taalibe war nañ koo joxaat gëdd te ko bu baax a baax ana loo leen ciy soog jërëjëf li may dénk mbokku taalibe rek mu comme ni ma ko waxee lu waaye jëriñu ci xas ji yow la ndax xas yi mën naa bari ci yow lool waaye am na noo koy jàpp rek moo koy journal ñoo dem ci yow te waxoon na ko jamono lu ñëw jamono lañ toll xas yi nag lu mënul amul lu mënta saafara amul lu mënta def amul kon nan ko sellal di xam fi mu koy ñàbbee wut say di xam fi mu koy jàngee di xam ni mu koy ni koy ni mu ko fi mu koy balance yi mu koy jàngee warmaal ko ndax kat ñun suñ bànneex ker tiim yi lépp tiim ñu koy jàng mais ku tedd ki ba mu koy bind ci ay tartar la ko doon bind wax na ne demoon na ba muy bind ba daam jeex ci ci yaramam lay sëpp ci ci deretam di bind xëste yi kon kooku na mu ko amee woon ni mu ko doon defee tey jii mu yombalal nu ko ñu mën a toog fi seet ko jàng di lekk ba naan lu jour war nañ koo a war maan kon nanu fonk li may wax mooy li may wax mooy ñu fonkaat sëriñ bi damay gis na mbokk taalibe yi dañuy wax ñaari baat yu wax rek tudd sëriñ bi mais sëriñ bi waruñu koy gaaw a tudd dañ ko war a jël teg ko fële ndax kooku beneen affaire la te war sëriñ bu ñu ko defee lu ñu bëgg danañ ko am gën a fonkaat xeste yi baax baax ndax xeste yi nit da nga gis ku koy jàng koo xam ne muy am ay loraange mais ca nam koy jànge la ndax xeste boo koy jàng da nga war a sell da war a wormaat teg ko ci fi nga xam ne si la ko sëriñ bi tegoon

Euh, mu di xasida yi maanaam euh, tubaab yi ñoo ko bañoon mu yëkkati pour laa ilaaha illallaah ci ab dëkkam ba tax ñu génne woon ko ne doo ko fi doo ko du fi amee tey ak njabootam ñoo ñëw ci seen biir di ko fi yëkkati ni nga ko waxee léegi ci seen wedd yi ci seen biir néeg yi ci seen biir kër yi te mënuñ ci dara kon Serigne Touba yaakaar naa ne gañe na xeex bi mu doon xeex euh, ci kàttanu boroomam. te waxoon na leen ko inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li maliki mutarra te loolee lii doy na ci sëkk firnde yaakaar naa ne mboolem monde bi amul benn continent wala benn dëkk wala benn réew booy dugg tay te njabootu Sëriñ Tuubaa néewuñu fa di yëkkati xasida bi guddi gu jot ci daayira yi ak ci sorne xasida yi ak ci di ko durus niñ ko war a defee kon yaakaar naa ne Serigne Touba gàcce may laa ba la mu bëggoon lépp suñ borom defal na ko ko kon sa kàddu yi mujj rek nga tàggatoo tàggatu eh, ak kuréel eh, waa kuréel Sayxul Xadim TV incha allah ba beneen loolu am na solo ndax fii ñu nekk rek dafa yi booy dem Sénégal da ngay def ñaari fan ci mbé yoon ñu ñëw ba fi digal kon loolu ku ne xam ne ne lu naan Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam la Serigne Touba du nax kenn waaye kenn mënu koo nax kon gën a góorgóor ci liggéey Serigne Touba bi di sant bu baax a baax waa kuréelu Seexul Xadim ci seen liggéey bu rafet ak seen pas-pas nga xam ne fa ngeen nekk sor na waaye da ngeen a bàyyi lépp ndax liggéey sëñ Tuubaa bi leen tax a jóg ñu ngi leen di sant di rafetlu seen liggéey di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo di télé bi ñu nuyu sëñ Sidi Diène suñu xarit ak yow mi nga xam ne yaa fi teew tey def fi liggéey bu rafet bu mucc ay boole kooku taaliba gu mat sax xam sëñ Touba rek la ñor kon ñu lay ñaanal di ñaanal teel ak mboolem ñu ko seex sëñ taxaw leen ba li ngeen bëgg yéen xam sëñ Touba defal leen li ngeen bëgg seen télé mu dem ba gën a kawete lépp ci barke xas de ak Touba TV li ngeen fekk seen liggéey bu rafet fii ci Argentine ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax amiin jërëjëf seen kuréel euh, Euh, Touba Argentine Serigne euh, Maam Thierno euh, Serigne Seck jiite ko ñu doon leen diktal li nga xam ne moo xew fii tey ci bis bi di bisu journée xasida bi nga xam ne moom la ñu amal fii ci Buenos Aires di Touba Argentina mu mel nekkoon kon wax dëgg yàlla liggéey bi macha allah bokki taalibe yi taxaw nañ ci taxaw bu mat sëkk rafet na wax dëgg yàlla ca suba ba léegi ñu ngi ci liggéey bi ngeen àndoon ceeg seen mbokkum taalibe Serigne Mbacke Ndiaye Mouhamed Touba Argentina Euh, euh, kuréel Sayxul Xadim TV